maaleykum waa Tumtu Ousmane yaa ngi ci jàmm naka mu nam naa la de waa Tumtu Ousmane lan moo xew lan moo xew ba su may romb doo soo ma rombee su ma la xoolee sax doo ma lan la lan moo xew. man de damaa jaaxle baadu li ma la fayul nag moo tax nga bëgg maa woon si jukke ji ah àdduna ah, du nii de ba ma daan dama daan la de. Mina ça va yaa ngi ci jàmm actuellement guddi na boo dara looy wax. ko sama avocat waaye du man eh, minaay xam nga lan la dara lu may wax boo amee say nuyoo na nga ko téye auzu billaahi mina sheytaani rajiim avocat jàmm nag xanaa danga maa gisul ne tontu Ousmane tamit xanaa dama jékku ah mu téye sama nuyoo <laughs> ak ku boowee ni yow nag yow tontu Ousmane xanaa gisoo sa bopp yow dangaa boo de ñoom ñu naan nga jom de waaye dañ laa ne man dama yomb wala affaire yooyu noonu nga ñëw di jaar jaala di jéem teg di la yooyu noonu lu jëntuuma loolu hee tontu Ousmane man ngay waxal de yow ma yàgg la gis nga catal bët di ma xool di ma gens man <laughs> man la man la minaa de waxal rek soo bëggee tamit mu ñëw de bul ko yàggal waay mina man leen laa bëgg xamal samay wax du ci bëri sama xaalis damay nag ma koy jox ma génnee la ci biti wuyu man nag kaa ñu waxtaane ko rek nag fii leneen xaju fi te nag dangaa bëgg massage dégg naa de xool ma nag te sa yaxi dañ ko danga nam ko koo noor janti kaay fii ma téye la bis bu la massage ba pare dootoo demati si kenn di la massage kaa ñu waxtaane ko rek te nag bis bu ma la massé waxuma la waxi xaalis de mais lépp ngay fàtte wala yow moom <laughs> ma ñëw rek ñu réglé ko. Mina man duma sa morom est ce que sama der bi nga nekk di yàq si digg dëkk bi xëy lépp léegi nga ko te bëggatuma sax nga may message daan message yi est ce te sama xaalis wax naa fi wax suba nag moo ko indil nu mu gën a gaawee. ah yow tamit Pa Ousmane yow lan <laughs> man nag su ma la am na lu la fayal jàppal ne waxuma dëgg. mais am naa leneen lu ma la mën a lu dul a nag te bis bu ma la ko ñamalee dootoo laajati salaire yow. yow da nga jàpp ne yow man ak ñi ngay iri sa gaale ñoo man du ma ñooñu ñooñu dañuy ñëw sa gale ñëw yëg sa kaw tëddee ba nga waw kongu bàyyi fa dem sa yoon insi ñoo ngi nii li nga fay sa luwaay sax amoo ko léegi nga bëgg a ñëw fii di ma sonal sama xaalis la soxla te du ma ko waxaat yow mi ne ba nga jàpp ne man lijjanti man wala man faale naa la yow yaa foos yi si mbedd bi yéen a yem te dañ laa duy ba nga fees del del del del del yow oto sax bu ñëwee doo vide amoo classe ñàkk nga fayda soof nga ñaaw nga xeeñ nga maa ngi doog a gëm changement bi nag ah voix bi si suuf nag yow nga ne doo genre boobu te mu dégg voix jigéen ci suuf yow mii waa baax na len nag laa la mën a xamal yoruma lu ma la fay yoruma ko de len nag laa yor mi sama bopp soo bëggee nag nga ñëw sim ci cere ji soo bëggul tamit tampi heure boo bëggee ñëw soo bëggul suma amee fayal <laughs> yow sa cere dafa xajam <laughs> sa cere dafa xajam tamit nag xale yu ndaw yi nekk fii yor cere bu saf laalo saf laalo saf laalo laalo wax de retaaxit ah, tamit da laa dee bu xajam yow fausse nga wax de <laughs> xamul ne fausse bii nii avocat bi nga jël laal na ci fausse bii nii laal na ci moom moom sax moo wax pour mu ñëw ji xaw a jéggalu nii rek xam nga loolu sax te yow nag fu avocat tourné di wax pour mu ñow baab la yaa quelque chose xam nga ne kon cere jooju bi cere xale waaye kay soo yëboo nag nga ñëw ñu waxtaane ko nga kalmayu loolu rek am lu ma wax sinon di nga perte lépp voilà yem ak yow. maintenant est ce que xam nga leen actuellement dafa guddi man damaa sonn bëgg a noppal am na des saf yu sew yi ci de toute façon sama xaar dinaa ci jot ci nii wala si naa sa amee dégg bonne nuit. maa gën a xam ne sa jabar nekku fi leen nag laa bëgg a xamal te jël buntu bi nank coow du jub danga sànnee ko ci kaw lal bi xam ne damay ñëw rek dugg. ah man de sama buntu dinaa ko tijji. ak ngóor laa mais dafal leen sa xel ak lu munti xew sama xarit moo ko fay suba. ah man daal loolu léegi laa la sant nag kese yomb ba dee xoola te ji bunt wi rek ma ñëw nag suba nag suba yàlla la lu ci mënti am rek ñu xam ne suba la maa ngi ñëw de su ma ñëwee nag ba jàpp la ba bàyyi la. ba tey la xoolal masal laa lay njëkk lii bi am na sama benn huile bu baax bu ma yor fii nii naa ko indaale su ma bam ba la ba pare hmm, su ma paree nag ba la ci lal bi dootoo ko doole te nag su jàppee sëccu su yéen yooyu ba bàyyi ko hmm, dina mel ne fréquence de foo bëgg laa lay te FM wala Walfadjri wala fu neex wala Zik FM yaay xool daal. ah fii de nga waroon commencé moom boo njëkkee woon fii coodu jib mais leen laa nga xam ko jëm ca làmb ja di bàkku jóge ca làmb ji di bàkku moo ko gën <laughs> da nga ni gone rek mais boo dikkee li nga xam ne lépp dëgg la